actu du jour li ci gën a fës bokk na si xibaar bi yées bu tukkee ci coronavirus bi jëwriñ bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay xam ne ne rek tey si altine bi ñaar fukki nit ñoo amaat bi le feebar di coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal bam noppee nag kii di docteur Bousso moo ko feel di xam ne nag nee nañu xaarandi yeneen cas yu gën a grave gannaaw ba amee rek ñaari cas ya nga xamante ne ni jaaxal na leen jamono ji ca diwaanu Mbour ab immigré bu ñibbisi fii si Sénégal def na ñaari ay bés rek moo ñàkk bakkanam loolu nag jaaxal askan wi lool di samp sax ab laaj naan rek ba xam ndax immigré boobee ba mu ñibbisee fii si Sénégal dem na rek ca ñu yor wàllum wér gu yaram yi ngeen ñu saytul ko ba xool ndax amee na coronavirus bi am déet ba tey rek ci coronavirus bi waaye dinañ àddu rek si lu si xalifu général des mourides Serigne Mountakha Mbacké defaat moom nag gannaaw 200 millions yi dafa génn rek ci beneen facette ay kii di professeur Seydi sax moo ko xamle gannaaw ba mu ko remercier moom nag ay bernde rek la yëkkati may ko malade yooyee amee lii di coronavirus bi ca hôpital Fann Babacar Ngom daal dinay làmb poosam def si xeexu coronavirus bi waaye tamit euh, waa Medina Baye de suñ si gannaaw benn yoon gannaaw rek ba famille religieuse ba fa nekk nekk dal di joxe ñoom it ab enveloppe si euh, bile xeex di coronavirus bi ana ñaata lañ si joxe daañu leen ko dégtal ci bu ñuy yaatal lay doon docteur Samba di faux médecin bi ñu démasqué moom nag euh, danañu leen euh, yaatalal faux CV wam bi ak rek euh, fan la jot a jaar maanaam rek si lan la jot a jaar parcours am loolu yëpp daañu leen ko dégtal fii nii rek si actu du jour. si lu ñeel people si mbirum Nabou la ñu si wax moom nag Souadou si ñu gën koo xam rek si turum Nabou si série bi mu nekk actrice di pot et Marichou daal dinay dégg alxayri démb si dimanche bi moom nag ka ko takk Mamadou Koné lay wuyoo kuy Mamadou Koné daañu leen ko gën a yaatalal moom moom mee si lu muy yëngu ak si la mu nekk yëpp fii nii rek ci biir xibaar li bu loolu yëpp yembee ñu wax si suñu international sénégalais bi Sadio Mané si direct ba ñu doon amal rek nga xam ne rek da seet dal fan si Sénégal yi mu ciy gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. bàkk ba jib na ñu leen di nuyu yéen ñu ñuy teewlu saa su ne rek si Dakar Buzz coronavirus bi la ñu koy dooree jëwriñ bu ñu dënk wàllum wér gu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay xamle xibaar bu yées bu tukkee si coronavirus bi tey si altine ji weeri fan si weeru mars bàyyeekoo rek ci institut Pasteur bu Dakar bu ñu sukkandikoo nag si moom ay Diouf Sarr tey rek juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar la ñu testé waaye nag ñaar fukk yi rek ñoo si daal di positif juróom yi ñoo jógee biti réew dugg si si réew mi wàll ak benn cas communautaire si noonu nag benn nit la ñu si faj ba mu wër tey loolee doon liy firnde ne lekk depuis ba ñu xamle cas bu njëkk coronavirus bi si suñu réew mii di Sénégal téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ko si jot am ñu faj rek ñaar fukk ak juróom-ñett ya ba ñu wër mu desandi rek téeméer ak fanweer ñeent ya ñu war a faj waaye nag daal dinañu xam leen rek am na ñaari malade ya nga xamante ne nii ñu ngi si état boo xam ne jaaxal na leen lool ba kenn ki sax dañ koy dimbale ngir mu mën a moom nag jëwriñ bi ba mu noppee rek docteur Bousso moo ko feelu moom nag docteur Bousso nee na sax euh, nañu xaar rek yeneen i cas yu gën a graaw si bile feebar di coronavirus yi suñu réew mii di Sénégal gannaaw ba mu leeralee sax si lu ñeel cas euh, importé yu ñuy nemmee ko maanaam rek yu jóge biti réew euh, te ñu tëj frontières yi moom sax daal dina koy leeral ne rek laataa ñu tëj frontières yi ba si rek veille ba ñu koy tëj amoon nañu wàcc si donc nañu xarandi ay cas importé fii ba le 4 avril gannaaw ba mu bokkee ci neuf patients yu wër dimanche Guirassy daal dina yëkkati ay kàddu di xamle ni rek dañu ko diagnostiqué woon positif coronavirus bi def na dizaine de jours waaye nag faj nañ ko ba mu wër ba autorisé ko sax ba mu daal di ñibbi këram ci noonu muy remercier askan wi bu baax ci suñ nu ñu ko soutenir di koy ñaanal ci moment yu difficile ya mu nekkoon gannaa ba mu xamle ni rek moo ko dooleel sax ba mu gañe bile feebar moom nag daal dinay delloo njukkal particulièrement kilifa diine yi tamit initiative ya bàyyeekoo si njiitu réew mi yi Sall tey rendre hommage autorité sanitaire yi rawatina rek jëwriñ bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr ba mu ca noppee nag lay leeral ni xeex bi si Covid 19 bi mu ngi wëyandi jarul rek ñuy tiit waaye nañu gën a njaflax te ànd ak yar si règle yu si suñu institution yi tëral. ma dugg Ziguinchor bu ñu sukkandikoo ci média test ya ñu amaloon ci détenu bu dawoon ca Ziguinchor daa négatif ñu placé woon ko nag en isolement ci ab centre de santé di xaarandi rek résultat test yi Pape Alioune Sall mi ngi dawoon rek ca prison ba samedi àndoon nag beneen détenu boo xam ne ni nationalité italienne la gannaaw ba ñu leen déclaré woon suspect ci coronavirus bi waaye yàlla def na rek ba ñoom ñaar ñëpp seen test yi daa négatif luy firndeel ni ñoom ñooñee amuñu bile feebar di coronavirus bi même bu dee sax dañu doon présenté ay symptômes Covid 19 bu ñu sukkandikoo ba tey nag si source yi détenu yooyu nag dellu nañu ca prison ba di xaarandi rek ngir ñu àtte leen si waxtu takk derrière di wër tamit keneen ku dawoon kookee nag ñu waroon transféré ca prison bu Bignona dañu ko yóbbu woon rek si hôpital régional ba ngir ay test waaye nag laata ñu koy defal ay prélèvement ak loxoom rek grille fenêtre ba summi ay yéreem rek laata muy dal di daw. su ma jógee Ziguinchor damay dugg mbuur maa ngi leen koy junj léegi ab immigré bu ñibbisi fii si Sénégal def na ñaari ay bés te rek ñàkk bakkanam samedi foofee si commune bu Mbour moo rek tax ba ku nekk di si yàbbi si seen gox boobee gannaaw ba ñu si sampee sax ay laaj dinaan ndax moodu moodu boobee demoon na sax si structure de santé yi ñu testé ko si Covid 19 bi la la ba mu ñibbisee ba noppi waaye nag lu ñu si mën a jàpp rek moo di ay parent wam daal dina ñuy heurté si décision. autorité yu institu yu instruire rek autopsie ngir xam rek lu sabab génnub àdduna moodu moodu boobee si jamono ji nga xam ne rek fukki nit ak benn test nañu leen ñu positif si coronavirus bi foofee ca diwaanu Mbour nga xam ne bokk na si ñeent par contamination communautaire résultat autopsie bi nag ñu ngi koy xaarandi ni kii tey si altine ji ba tey rek si coronavirus bi laay desandi waaye bile yoon ak xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké moom nag gannaaw 200 millions yi mu joxoon rek don état bi Serigne Mountakha daal dinay dimbalewaat malade yi si beneen facette gannaaw ba ko professeur Seydi di chef de service des maladies infectieuses bu hôpital Fann delloowee njukkal di xamle ni rek euh, ñey may na leen cent plats yi ñu jagleel rek malade yooyee am Covid 19 bi si noonu professeur Seydi di xamle ni rek bernde yooyu sax dana yokk prise en charge médical beeg nutritionnel bi yu patient yooyee ñu hospitalisé ci xeexu ba bile pandémie laata mi dellu di jaajëfal Serigne Mountakha ci ndimbal gi muy apporter rek service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier national universitaire de Fann ab sénégalaise bu jógee ko réewum France def na ay bés rek la benn chef d'agence su banque tuumal ni dafa amee Covid 19 bi si noonee rek la gisee ni daf ko diffamé ba tax rek mu porté ko plainte ci commissariat bu Ndakaaru waaye nag test Covid 19 ya ñu defal euh, rek ndaw soose daa ñëw positif moom nag daal dinañ koy mettre en quarantaine ak kii rek ay jegeñaaleem ab équipe médicale nag daal dinay jël en charge élément police ya ko auditionné woon. Babacar Ngom daa dinay rek làmb pocham def si xeexu ba coronavirus bile moom nag 100 millions si suñuy koppar rek la daal di participer si bile xeex Medina Baye tamit desul gannaaw benn yoon rek si bile xeex famille religieuse ba fa nekk daal dina ñuy rek joxe 55 millions si suñuy koppar ngir jàppale ñoom it gouvernement bu Sénégal si xeexu ba bile feebar di Covid 19 bi. si couvre-feu bi laay addu ak takk der yi nga xam ni rek dañoo mel ni ay ambulancier ji ak nañuy wëlloo population bi comme nu ngeen leen di gisee noonu waaye nag bu loolu weesoo faux gendarme bi ñu tegoon loxo bés yi la ñu génn daal di nañuy teggati loxo rek beneen faux gendarme comme nu ngeen koy gisee noonu mu doon nag loo xam ne ni rafetlu wuñu ko benn yoon ak fu réew mi toll nii si xeexu boobilee feebar gane si suñu réew mi moom sax kooku di mbubboo turu ba homme de tenue takk der yi sax jot nañ ko laaj ay question ya nga xamante suivre si suñu sit internet ngir gën see am ay leeral te ñoom ñoo ñee sax tàkk der yi sax daal dinañuy rek amat ay moyens matériels yu tàkkuloon nga xam ne sax bokk na si ay moto yoo xamante ne nii rek daa mel ni pare nañ ngir janook askan wi si bile loi ñu tëral si lu ñeel couvre-feu bi nga xam ne rek si diggante vingt heures jàpp six heures du matin wala la fekk si mbedd mi ñoom nag seen moto yooyu image yuñ si publier si Facebook bokk na si courant bi ma addu si mbirum docteur Samba di faux médecin bi ñu démasqué moom nag si foo CV wam boobu da see xamle ni rek moom Amadou Samba médecin spécialiste en développement industriel du médicament la titulaire MBA ca ISM waaye moom moomee nag amul benn si diplôme yooyee mu wax ni rek moom moom moom la am euh, kenn si ay patient wam sax dana ko dénoncé moom nag docteur Samba parcours am dëgg du lenn rek du dul foo médecin membre du CR cercle des cadres républicains bu jëwrin bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr dirigé moom sax daal dinay rek doté ab carte professionnelle de médecin bi nga xamante ne nii rek ministère de la santé moo ko délivré ba noppi am cabinet këram euh, foofee ca Rufisque euh, ca weeru novembre atum 2019 participé woon na sax ci panel de haut niveau des cadre républicains ak njiitu réew mi Macky Sall euh, sa King Fahd Palace ci weeru janvier 2020 bi ñu génn nag moom moomee eh, Tayyip Erdogan di chef bureau économique du cabinet du président euh, recevoir woon na ko ca présidence de la république si eh, visite bu njiitu réew ba turc doon amal rek ñaar fukki fan ak juróom-ñett ba tey rek si weeru janvier bi eh, tamit rek invité woon nañ ko ca RDV mu doon wax si problématique prise en charge euh, hémodialyse yi ñàkku ba garabu fajukaay yi ak i ay question d'actualité janvier ba loolu weesoo ba tey si weeru janvier bi moom faux médecin boobee euh, participer na woon si réunion des cadres républicains si teewaayu ministre yi di Abdoulaye Diouf Sarr ak Mor Ngom si weeru mars bi ñu nekk nag la nekkoon en tournée ak fondation Servir le Sénégal euh, bu première dame Marième Faye Sall jiite si lu ñet rek projet Rama bi ñu euh, lancé woon weeru décembre atub 2018 ngir dimbale mag yi ba tey rek si mars mi ngi si woon au conclave des cadres républicains ak ministre yi di Abdoulaye Diouf Sarr Seydou Guèye ak Mame Mbaye Niang laata rek muy dem ci émission ngonal bu ñuy amal ca TFM doon addu rek ci sujet d'actualité yeeg ordre sanitaire bi moom sax jot naa examiner ay patients yu bëri yu amoon ay symptômes Covid 19 bi nga xam ne rek da leen doon testé négatif laata mu leen di jox ab bulletin de santé yu am rek en ak. ak sooyu institut pasteur bu ndakaaru gannaaw ba mu falsifier seen entête bi cas suspect yooyu yëpp nag daal nañ leen di mettre en quarantaine ba mbir mi éclaté moom sax docteur Samba mu ngi doon liggéey ak ay société yu mag fii ci Sénégal di leen rekk testel seen employé yi gagné sax ay marché de prestation euh, ci médecine du travail bien laata pandémie Covid 19 bi benn juma nag la ko police piégé si locaux yu institution financière susmentionné ba ñu ko woowoon rek ngir mu defal leen ay prélèvement si ay cas suspect ba ñuy amal nag perquisition bi këram ñoom police yi la ñu fa fekk rek ay poche de sang ay bulletin d'analyse ab stock thermoflash ay gel hydroalcoolique ak yeneen i jumtukaay rek nga xam ne sax bokk na si ay contrat yu koy liyeeg structure yu mag yu nekkee si réew mi mi ngi yoroon tamit rek euh, moom usurpateur boobu ay tampon frauduleuse yu bëri lool yu mu confectionné woon ak ay trouble praticien de la santé si ay spécialiste yu wuute lool ba jota rek ubbi sax ay cabinet médicaux loolee tax rek ba ñu samp ay laaj di naan ba xam ndax loolee eh, dañu dañu ko war a faat waaye nag laata loolu rek eh, nañu testé ministre am kan moo ko recruter eh, kan lay liggéeyal naka la mën a defee bile mbir si temps bi yëpp te jaxlewul benn yoon kan moo ko couvrir ak ban puissance moo ko enrobé dañuy rek toppandi mbir mi ngir rekk di xaarandi lu jóge ko ci enquête bu ci police ubbi si mbirum faux médecin bi laay desandi ba tey waaye bi la yoon ak Abdoulaye Diouf Sarr rek ministère am bu si raxas seeni loxo ba mu set gannaaw ba mu leeralee ni rek bu weesoo institut Pasteur bu Dakar eh, si ñëwuñu rek benn contrat feneen te mësuñoo réaliser eh, ay test test ci ab laboratoire bu wuteeg institut Pasteur te jamono ji bépp malade bu ñu diagnostiqué moo xam nga positif wala nga négatif ñoo ngi bàyyeekoo rek ci institut Pasteur bu Ndakaaru laata ñuy xam le ni sax ba fu ñuy waxeeg yéen ni ministère de la santé de l'action sociale si ñëwul benn contrat ak keneen ba tey ngeen di teewlu actu du jour damay addu jëmale si leneen soit du si ñu gën koo xam si turub nabb si série bii di Pod et Marichou daa dinay dégg alxayri gannaaw ba mu marié ni kii démb si dimanche bi moom nag euh, bradroit droit Wally Ballago Seck buy wuyoo si turub Mamadou Koné moo ko jël soxna mu doon nag luy firndeel ni actrice yi soobu nañu jamono ji eh, si mariage yi bu ñenn ñi tànnee footballeur yi nabb moom euh, waaju discret di yëngu rek si showbiz bi la tànn borom këram googee nag di Mamadou Koné mooy ñaareelu manageru kii di Waly Ballago Seck bu weesoo rek Ndiaga Euro mu doon nag nit ku simple te professionnel ba tax sax duñu koy nemmeeku ci xew-xew yu rëy rek yu Faramareen bi di faral di amal Koné nag di intellectuel tax rek ba muy gérer benn pàcc si lu ñeel communication gu Waly Ballago mu nekk nag taalibe Cheikh borom kërub nabu boobee day def sax ay zikru tijaan ci réseaux sociaux yi partagé ay vidéo Serigne Cheikh ak njabootu Maodo leneen rek ñoru ko si mu doon luy firndeel ni rek tanneef bu baax la nabu def ba tax rek ñu dellu di leen di souhaiter heureux ménage ñoom mossieur et madame Koné suñu international sénégalais bi Sadio Mané la koy tëje seen live ya ñuy amal nag sur Instagram nga xam ne si la ñuy échanger ak seen fans yi samedi Mbaye Diagne rek ak Sadio Mané ñoo ko def si noonu Sadio Mané dal sax si kaw supporteram yu nekkee fii si Sénégal di leen di fàttali sax ba ñu koy woowee Samba Alar ba ñu sa noppee la ñaari international la ñaari internationaux yooyee échanger rek si seen goût yi carrière ak rek yeneen i sujet